xeme moon si Touba ba tax dootu leen demati feneen di jéggaan leneen na fii bu bi showroom Jawdeco Déco si Touba 28 ak le gérant Pape Abdoulaye Diaw talibé Serigne Fallou Cheibou bi moo sagal doomu dara bis ni ki tey jàppaleen kenn dematul feneen di wuti leneen ndaxte nag ni ko Serigne Touba waxe woon si Matlabul Les lépp lu gën léppay ak si Touba wa mbokki Sénégal mbokki Touba lépp lu ajo si wàllu lumière électricité meuble pour seen décoration métallique Les lu jëm si bois inox ak Diaw ko fii si Touba 28 jaaxle jeex da ngeen bëggoon ay enseigne ngir taaral seen barabu kay mu don totem branding habillage façade lettrage enseigne lumineuse yu mango ak jamono jawde ko famuy tibé fofé la ñi gëna xam ñi gëna rañé ñi gëna bëgg lu baax dekk yi gëna a mag si àdduna kep di jëlé kon dal mbokk yi ak ci 28 am nañu ay lumière sur toutes les formes ay nouveautés tendance yi nga xamanteni mom moom appliquer partout si barab yi gëna a mag ay luminaire suspendus luminaire plafonnier si jawde ko ci Touba fait une large gamme de luminaires et de lampes waaye nag décoration liñ ci mën mëni kenn mënu ko si fii si mim réew ay décoration yu méngoog jamono décoration intérieure ngeen am salle wala salon à manger ngeen am jàkka jumaa ngeen bëgg ay lustre wala lépp luy xet décoration pour barab yooyu bu ngeen amee barabu xasida ñëw leen jaw déco décoration chambre espace bu mën a doon lépp lu jëm si électricité am les grandes marques du monde le grand Ingelec am a ay contact ak lépp loo xamante ni daal moom ngeen itteewu kay nga découvrir suñu ay Coup Blazer. laser jaw yembal machine 8 tax gain mën réaliser li ngeen bëgg jaratul dem Fanen suñu ay machine Molen leen a ay design yu mucc ay pour une décoration bu mu rampe escalier wala les plus travaux suñuy enseignes enseignement de qualité garantie pour une durée de un an si vous menuiserie jàppaleen mbokk yi bu dressing cuisine américaine comptoir ngeen bëgg ay logo yu mucc ayib mën ngeen woti 76 224 44 04 wala 726 84 84 jaw deco si Touba moo gunge si le plus seen travaux ànd ak personnel bu disponible accueillant xam walu wi ak gérant bi nga xamanteni lépp lu yok Touba moko tax jóg mom pap Abdoulaye Diaw talibé Serigne Fallou Cheibou moy ñaanal ku tedd ki Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides yag fi lol te ànd ak wér leni ñaanal màggalu jàmm الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد waali wa saabi wa salama tasiiman halan wa saalan dalal ak jàmm safar yaay sunu mbég yaay sunu weer saaru safar mbég mi jalaañoo yaa di weeru mbég te xéewali dolliku ñu am ay yokkute sunu sañoon nga fi nun dakk fi ñun ba faw ndaxte yaa di weer wi gën fi nun salaamaaleykum sëñ Abdou Khadir Jili Fall ñi ngi fi fekk la ci parti vessel ngeen nekk ci marché Ocass ñu jëm ci magal gi fan yu néew des ci lan ngay nuyoo ñu soog a sóob ak yow ci laaj yi. waaleykum salaam wa rahmatullah waaw sëñ maa ngi lay ziar bu baax baax di nuyu téléspectateurs yi maanaam di nuyu ñi nga xamante ni ñoo nekk ci site internet bi ak ñi leen suivre chaque jour. waaw di jiital nuyoo bi euh, Serigne Touba Cheikhul Khadim Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool. waaw ci darajey Muhammad li nga xam moom la yéene liggéeyal maamam ju tedd ji suñ borom kattanal ko ko mu ànd ak sagoom ak murid yëpp ñu defandoo ko ci barke Seexul Xadim Abdou ñu fekk la ci barab boo xam ne ni moom la ñu wax vaisselle muy lu jëm ci fàgguteef yoo xam ne ala kulli xaal gan bu ñëwee mënta ñàkk ñu koy jëfandikoo yan yan yan fan ngeen ci toll ci jamono bi waaw jamono yi nag moom wax dëgg yàlla moom par rapport ak euh, yeneen yeneen jamono yi ni doon demee xam naa am na changement waaye nag euh, du lool ndax mbiru Serigne Touba mom dafa nek lo xamanteni ni manam euh, du am tanki gannaaw day am tànk kanam bu dee ci part bi nga xamanteni mom lañuy yëngu muy vessel bi yalla def na na nak mom wax dëgg yalla mom chaque jour dañ ci gëna ovelier di sante suñu borom bax bax ndax it danañ def le tout manam ku fi ñew lepp lo soxla ta nga war ko jëfëndiko ci sa biir kër li jëm ci walum bernde ay bol misui affaire yooyu non da nga fek sur place lol mom yalla sutural nañu ci mom ñang ci def sing temple lay waaw waaw xam naa nag moom ak nawet bi ni mu demee waaye nag wax dëgg yàlla feeñu ci moom ku ne moom moo ñu ci gis sa bopp moom wax dëgg yàlla ndax affaire moom macha allah actuellement nii moom. Mhm. kon day mel ne daal ku leen ku dikk ci seen barab yi mel ne lu mu soxlawoo ci këram ngir dalale dalale ko ganam ak bendee la ko ganam ci wàllu jumtukaay yi jàpp ni na fi. waaw loolu moom day jàpp ni ndax boo dee xoolee màggal li ci ëpp maanaam termus la ñuy soxla lu jëm ci termus café yi ak euh, kaas lu mel ne ay plateau yi nga xam ci lañ teg xewaleeg yooyu ak bool miss yi ak palaat yi ak euh, li nga xamante mooy glacière yeeg waaw yooyu yëpp moom wax dëgg yàlla moom yàlla def na na moom yemb na waaw ba nga xamante ci li nga xamante ni moom la ñuy conserver lu mel ne canette yeeg yooyu mooy mooy mooy pël yi yooyu yëpp moom yàlla def na na moom yemb na moom ku ñëw ci barab yi moom bu soobee incha allah rabbi da nga fekk lépp sur place waaw njëg yu xéewale nag moom yoo xamante ni yu murital lañ koy wax waaw ndax danañ fexe ba ku ci nekk rek manam li nga li nga li nga fi andi rek danañ fexé ba nga am ci li nga tollok lool ci kàttan suñu borom ndax lepp ci bis seigne touba rek la jëm kon ñun seigne ñoo jé ko wala ñi di ci wàññi danañ fexé ba lepp jaar yoon inshallah allah sax la bëggu ñu tejé muy wax la walu njëg client bi ñëw di jënd ci ndax mbir yi am na yokkute digganteem ak bu dul ndax yokku gi bu amé itam ndax ci yeen la bayiko wala fa muy jóge la ci kaw lool loñ ci mëna indil muy suñu laaj bu mujj wa loolu nak euh, dañuy ak problème yoy ndax euh, ñaari xam nga amna client yo xamante at baat lañ fi ñëw te heure suñu dikkee gis benn changement ak réew mi ni muy doxee dañuy defe ne mbir mi ci ñun la te ñun ñooy mujjee ñun ñooy mujjee article bi ñun suñu bopp ñooy mujjee bagage bi ndax euh, ki nga xamante ne moo ko fi andi importateur bi bu dikkee ba joxuñu ko danañ def le tout yàlla seere na am na yenn bagage yoo xamante ni wallahi buñ la waxoon liñ ci teg da nga naan déedéet ndax am na nooy demee nit ko noo xamante ni maanaam dootu leen seqate ay prix ndax loolu kóllëre lay doon kon nga jaay ko li nga xamante mooy prix bon bon prix ndax marché bi yaatu ok dëkk bi xam daa bëri ay kilifa dafa am no war a comporter ndax it wax dëgg yàlla ñun yàlla def na ñun suñu client yu bëree bëri maanaam ay mbàkk-mbàkk lañ te ñoom buñ xasa ba jën ci yow rek maanaam euh, kuñ xam rek dañ la fi yebal waaw ak waa waaw ak waa Moussa Baye ak ñi nga xamante ni maanaam ñooy Cheikh Serigne Touba nekk ci dëkk beeg yooyu loo tax ñun duñ fi nekk rek maanaam euh, maanaam euh, li dëkk bi méngol laal luñ bëgg di doxe waaw waaye nag wax dëgg yàlla duñ xool ñu neex ndax it mana manam war mengo méngoo euh, bi dañu wara def la tu ku fi dik ñu fexé manam traité la comme ni ñi traité euh, manam ab talibé fexé ba li nga bëgg nga am ko ci prix yu gën bu laye sax ñu def déplacement yët lu ko danañ ko def ndax lépp day wat ci liggéey sëñ Touba wa wa loolu mo yan kaddu ngay ci micro khadim yi Jili wa xana di len sant di len gërëm di li ngeen def ndax yombut déplacement bi ñew li ñun la waron ndax ci yor sa produit di jaay yow ya wara a def fekk nit ki mu defal la marché comme nak dik ngeen fi dañ leen sa di leen gëreum di ñaan yalla mi nga xamanteni mo amuk fay yalla na leen fay ak barke borom bis bi yalla na leen barke safar gi top barke sewul xadim wa yalla na leen yalla mana dal ba nga xamante internet ñong fa yegg rek yalla ñu fa yegg ci barke muhammad barke borom tuwa kon assalamualaikum, seigne abou Fall ñi ngi lay siyaar television Al khadimiyé dañu ñëwon tay ci marché bi doon xol ni ñi waajale bis bu tedd bi muy magal gi ñu fekk la fi ci sa barab ñu bàyyi la nga nuyoo ñu soog a yow ci laaj yi. waaw sëñ bi ñu ngi bu wér di leen seen wàccuwaay di leen wax yi tamit kër gi ñu ngi nuyu mbokk yëpp ak ñi ñuy déglu moment bi ak ñi ñuy seetaan waaw. boo ñu fekk la ci marché bi marché Ocass ngeen nekk ci yittey màggal gi ku wax màggal wax bernde ku wax bernde wax denrée alimentaire yi rawatina ndugg mu tooy mi rawatina wàllu naan yu dagan yi loolu nan ngeen ko waajalee ngir ñiy màggal si bañ am benn jafe-jafe ci li ñu war a jëfandikoo waaw macha allah xam nga borom dëkk bi ak borom magal gi dafa mën bisam franchement am na yu bari yoo xam ne si ne euh, bi biñ demee ba jub si ñi nga amoon jiixi jaaxa pour dina manqué mu déet waaye xam nga ku wax magal gi wax borom bis bi moom bisam moo koy yoral boppam ñu ne nii tubaarkàlla yëpp macha allah ñu bu dee wàllu naan bu dagat bi yëpp macha allah am na bu dee tamit wàllu ñam wu toy lu demé ne ay soble pomiteer itam aussi itam yoy yëpp amna na itam macha allah. naan ngeen nga ci mëna a ay ay ay xéet yu wuté tuddu ci lu tollok juroomi xéet rek. waaw amna ben boisson bu bees bu fi nek bu ñuy wax set set boobu macha allah boo génnee am ay gaay yo xamné ci ñu ci terrain bi ñom depuis 2 mois ñi ngi fi diko distribuer bu baax ci biir dëkk bi. waaw même man mi dama ci yëngu aussi tamit amna benen bu ñuy wax tamit rani amna na euh, boisson pëns. ak yeneen yoo xam ne si ne daal bari na daal ñu ngi ci marché bi franchement fi mu nii daal bu ñëw moom bu soobee yàlla dinañ la berne ba sa xol seet daal waaw waaw alhamdulilah daal fi ne nii ay xeetu ndugg mi yi nga ci yi nga xam ne am ngeen ko ci ak yi nga xam ne yéen a koy séntu te ñëwagul. waaw bu def xeetu ndugg mi moom comme ñun ñu am mooy diwlin ceeb ay sucre ay affaire yooyu yooyu moom macha allah marché bi moom mi ngi ciy déroulé bu baax fi ne yooyu tamit amul benn problème soble pomme de terre comme ni ma la waxee léegi. itamit moom mooy principal bi fi mu ne nii boo xoolee moom soble pomme de terre yeneen riz bi nga xam ne si ne dafa manqué woon bu yàgg ba léegi mooy bu weex bële moom it ñëw na muy muy rii Tyson bu bu bi comme bi ñuy wax karul yi boobu tamit ñëw na kon dañuy xaar rek yegg ci bis ba ak jàmm dalal suñu ay gan teral leen bu baax a baax. laaj bi ñu koy tëjee mooy eh, lii dal jaaykat yu bari mooy événement jub si nga jëlee njëg gi nga daan jaay yokk ci wala nangam ndax yéen ñi yeewoo ci dëkk bi tey bi loolu loon ci mën waaw ñun na xam nga fii ñun ñun ñun grossiste lañ ñun dañu tënku ci ay règle grossiste moom doo ñemee sañ a jël euh, prix bi nga jël di ko jaaye parce que man boo xoolee dama am ñu may contrôler ci wàll woowu kon man awma sañteebu ñëw rek di def ay prix yu jéggi dayo man prix yu logique laay jaay comme jaaykat bi mën a jëlaat dem jaayiwaat keneen ki mu war a jaay man loolu moom mooy mais amul benn prix boo xam ne da ngay augmenter pour di am chantage yooyu def pour ci bis bi moom li nga doon facturé day gën a wàññeeku mais du gën a seer parce que usines yi dañ lay defal ay réduction ak gars yi lay jaay moo taxit da ngay xool li ngay jaay sa client ñoom it ñu yeggee ñu mën a jaayaat waaw. Mhm. yan kàddu ngay tëjee si ñëpp. waaw di sant rek encore di sant yéen tamit bu baax franchement di xool ne lii yëpp jàpp si liggéey bi la ak li waral bis bi bon di sant yàlla di ñaan yàlla ñu koy fekk ay déwéni déwén déwén waaw loolu daal laa xam ne moom am naa lu ma ko maa ngi dal bu baax dal ok mbokki talibé kon niñ leen ko diggé won rek ci tambali gi yene ngi and ak khadimia TV ñi ngi ci biir marché Ocass waye nak ñi ngi ci parti matla yi nak ginaaw bi ñu jógee ci vaisselle yi ñew ci denrée alimentaire yi ñi ngi ci côté matla yi yépp mën ta ñak ci magal señ dam jaay lañu ñu ñu bàyyi ko mu nuyo soko sobo ak mom ci señ dam al khadimia ñi ngi lay nuyu di la ndokkeel ci tet assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi leen dulu nuyu baax baax di nuyuwaare atuma Khadim ma ngi leen baax baax di bismillah ma sha allah seigne Dame xamna laaj biñ lay ñëk laaj rek moy fi waxtu yu tollu magal gi dess fan yu néew wala ayu bis yu manké ngeen koy wajal mat la doon lo xam gan mënu ko euh lolu fan ngeen ci toll. macha allah waaw waajtaay ñu ci baxa bax a fex nañ ba mat laa yépp mom yépp yëpp teew na nga xam ngi wax ne mom mat la mënut ñak ndax gan ñu xam nga toogaay bi dañuy inta da yag yoon bi day met ba ñëw info nga mëna tok toog dallu mën a macha allah nañ ba mat laa yépp amna du li deux places trois places une place yëpp teewoon incha allah moom daal en lu waay am rek incha allah lu waay bëgg rek incha allah moom jàpp na incha allah macha ñi nga xam ne ñi ngi màggal si te bëgg bu ñu ñëwee am matelas yu am qualité yoo xam ne nii tàmbalee ko ci mer gàddu yi jëm kaw nooñu ko mën a limalee ak njëg ku ñëw mën a am jàppandi ak fi ngeen situé wu ci marché Ocass ba nga xam ne eh, ku ñëw rek mën a xam fi muy jubal si waaw waaw xam ñun moom ay ay ba jàppandal prix bi waaw ndax am na yu commencé 3500 am na yu commencé 4500 ba 5000 jëm kaw waaw ba am na ba 30000 ba 35000 waaw am na ci waaw macha allah. ndax ci matelas rek ngeen yem wala njëgënaay ak dara boog yooyu laxasewaale ngeen ko ci. waaw moom dañu fexe ba rek moom li ñëwee lépp jàppandal lu jëm ci wàllu matelas lu jëm ci wàllu wantulo siège basang ba ci siège yëpp rek tout lépp waaw yaa moom en tout cas lu waay bëgg sa kër rek ba ci sa néeg rek bu ñëwee dana fexe ba lépp jàppandal incha allah yaatu waaw dëkk bi daal daa xat moo tax dañu bëgg bu kiraam teewee rek dañu fexe ba lépp lu bëgg rek jàpp na incha allah waaw laaj bi ñu ko tëjee sëñ Dame mooy jafe-jafe amoo leen ko ci bi ngeen di jëlee ji bagage yi fu sori di ko indi ci dëkk bi ngir nit ñi mën cee jotee ndax amul ay taxes yu cher yu ci nguur gi dugal amul jafe-jafe yu ngeen ci am wala bu dee jàppandal la nga wax ko waaw xam naa nag moom euh, yéen tax du ñàkk nag xam naa bu dee moom màggee ay fan moom maanaka kaw yi dugg moom dana dana fay waaye loolu moom xam naa loolu léeg-léeg mënut a ñàkk moo tax waaye wax dëgg yàlla moom jàppandal moom wax dëgg yàlla bagage pour mu ñëw moom wax dëgg yàlla macha allah moom tey boo commande tey tey tey wax dëgg yàlla balaa ngoon sax mën na agsi incha allah moom wax dëgg yàlla lépp macha allah tawfiix na sëñ sëñ bi def ñu tawfiix moom macha allah. yan kàddu ngay tëjee. waaw di a baax di wax lii am na solo ndax xam nga moom di ngeen fexe maanaam bu nit xam waaw mu mi jàppante nit ñi ndax nit ñi boo xoolee ku nekk yaa ngi sa bërëb waaye lii moom yaatal la ñu ngi leen sant baax a baax di leen gërëm jërëjëf Xadim tabarkalla baax na kon mbokki taalibe yi ñu ngi fii ba tey ci espace su matelas yi ñu ngi fii ak euh, soxna maam Bousso ak soxna maam Diarra maam Diarra la ñuy njëkk a dékk suñu micro mu nuyoo ci turu alxadimiye ñu soog a jàll ci maam Bousso maam Diarra alxadimiye ñu ngi lay nuyu. aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu di si lu bëree bëri wax dëgg yàlla moom affaire yi moom neex na macha allah ñu ngi nii si matelas yi di teeru gan ñi ci bassin yeeg lépp wax dëgg yàlla moom bisub sañ bi moom ñu ci def rek xeeb na lu def rek macha allah moom dañuy bëgg a def loo xamante ni nii day gën a kawe wax dëgg yàlla. moom maam def na ñaari kàddu maam Bousso nooy feeloo sa turandoo yow it nga nuyoo ci micro alxadimi. bismillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di ñaan suñ borom defal ñu màggalu jàmm ak salaam lépp lu luñ ciy sàkku ak luñ ciy bëgg yàlla nañu ko suñu borom àggaleel bàkk Seydina Muhammad yàgg suñu xalifa général lu murit suñ borom kàttanal ko dooleel ko ba lépp lu mu yéene liggéeyal maamam suñ ko dooleel ko ba mu am wér ak man ak àggale ci barke Seydina Mohamed kontaan nañ torop nag macha allah ci màggal gi yàlla nañ ci dugg ci jàmm àggale ko ak jàmm alhamdulilah macha allah neex na torop wàccaay bi neex na torop bu ñu sañoon jeex benn yoon wax dëgg yàlla. maam Diarra maam wax ku ne xam ne ne mat laa ak ya koy ya koy taaral muy darab ak yi ñuy lal ak yéen loolu seen yëf la yéen jigéen ñi loolu fan ngeen ci toll. ah loolu moom macha allah loolu instant bi yëpp muy rido yi muy napp da taabal yi torchon yi i yëpp moom macha allah moom yooyu moom kenn waxatee su ko lu ñu ci def rek xeeb nan <laughs> ah yëpp macha allah ah, yëpp daal moom noppi na moom ñoom daal yéenay xaar daal gan ñi ñëw bis bi ñëw ñu bendee leen macha allah suñu borom fekkeel ñu ko nag fekk ko tatal ko màggal ko màggal ko neex a neex macha allah kenn bañ a manqué. maam wax na loolu maam loo koy feeloo yow it ci wàllu yi ngeen waajal. waaw ñu ngi waaj bu baax a baax ci lépp loo xam ne day benn rek ñu ngi ciy waaj wax dëgg yàlla lépp loo xam ne duñ ko defee suñuy gan dinañ kontaan ñu ngi ciy waaj bu baax a baax te suñu borom dinañu kàttanal dooleel ñu ba lépp luñ ci sumb rek ñu àggale ko ci barke Seydina Mohamed jërikaan yi ñuy def glace ak ventilo yeeg xeetu njar yu sedd yooyu yëf yëpp am na bàyyiwuñ dara lépp am na ha lépp lépp mën na incha allah yan kàddu ngay ah, xanaa di leen ñaanal rek suñu borom may ñu gudd fan may ñu wér may ñu fekk ak man at mu jot rek suñu borom di dogal màggal gi gën a neex luñ ci def ren rek yàlla ko borom màggal bi ful lu bëree bëri am nañ ci yéene nag lu bëree bëree bëri yàlla ko suñu borom def motti li yéene jépp jépp jépp ci bàkk Cheikh Khadim Mame looy tëjee gannaaw Mame Mame Bousso di ñaanal waa sit bi rek ñu jëm ci kanam yokk suñu borom yokku leen te ful leen waak Seydina Mohamed waa kay jaajëf barke borom Tuubaa kon ñi ngi fii ak euh, Daouda Mbengue ci marché bi ba tey mu am ay kaddu yu mu bëgg a rotal moom it ci gi ak ni ñu ko ni ñu ko waajalee incha allahu taala sëñ Daouda alxadim yee ñu ngi waaw fay naa leen masbillahi mina seytaani rajim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant sama ñaari waajur waaw màggal gi de moom wax dëgg yàlla neex rek neex rek sant san sant sant sëñ Tuubaa wér moom wax dëgg yàlla moom heure bu ñëwee rek jamono jaa saa fu ñëwee rek dañ koy waajal lépp luñ ci man rek danañ ci def teeru gan ñi teral leen ci barke Seexul Xadim neex rek wàllum ndox mi daal laa doon wax moom wàllum ndox mi daal moom sawaay bu mënoon a gën a xéewale daal moom dana moom dana gën a baax lool lool lool. gox bee ma dëkkee nag rawatina fu ñuy wax Mbacke Bari Touba Mbacke Bari ndindi ci ndindi la bokk wàllum ndox mi daal manqué na lool lool lool daal moom. bu ñu ci mënee dimbali daal moom ñu dimbali ñu si lu baax a baax wax fan fi ñu toll nag moom euh, ñàkkoon nañ ko waaye robinet yi ñu ngi xelliwaat boobaak léegi nag wax dëgg yàlla robinet yi tëjuñu ñu ngi xelli waaye nag lu mu gën a xéewale daal gën a baax bisub sëñ Tuubaa moom amul euh, sëñ Tuubaa moom amul Wow, man mo magal gi lepp luma ci man rek dana ko def ci carton dana gu danaa teeru gan len teeru len gunge waaw lol dal la ci amone lumay wax sant na bu baax nak waaw di ñaanal suñu Muntaxa suñu borom yagal ka fi maikafan may ko fanu gudd ak wér ba lim bëgg ligéyal mamam mu défé ko ni gëné gënee cheikhul khadim Xadim ñepp am jam ci seigne touba assalamu alaykum wa mbokk yi talibé ñi ngi leen di xéré wat bah, baax ñi ngi fi nak ci marché Ocass ba légui yéen nga and ak seen télévision Al khadimé ci kenkaayeri Touba Darou Sam ñi ngi fi nag ak sëñ Mbacke Diop moom mi nga xam ne mooy kilifa ak barab bi ñu bàyyi ko mu nuyoo ci micro alxadim yi ñu soog a ak moom ci laaj yi sëñ Mbacke ngi lay nuyu di la siyaare waaleykum salaam wa rahmatulah waaw ñoo ngi delloo ziar bu baax a baax a baax alhamdulilah ok bisimilah ngeen ni féete ci jamono kenkaayeri ku wax kenkaayeri wax kër gu yees wax changé wax defaraat wax joyanti màggal gi dëgmal nan ngeen def ak client yi ak produit bi nga xam ne moom ngeen di jëlee ci sori sa di indi ci dëkk bi waaw loolu nag moom du ci mën a waye nit ñi mom danaka ni bu magal gi déssé ay fan lu ci bari dañuy ñëw yéssalat seen kër bu dé ci walum produit mom maam dañ koy télé wajal afa bis bi ex dana fekk ñu jëli suñu bagage fele bitim réew nga am bala muy ex rek fekk na wacc neen bagage yi commencé di jaay client yi wa bismillah bu fekkente ne yalla dogal na ngeen tabbi ci wéru safar yëg-yëg bi ngeen ci walu njaay mi ak budul magal ndax amna wuté wuute ndax mënees na am na wute bu baax a baax a baax a baax wute gu bari sax bu màggal gi jub see ak bu màggal gi jàll see am na wute lool lool lool ndaxte bu màggal defee bu màggal desee lu mat weer rek ci nga yëg ni maanaam dëkk bi am na soppeeku maanaam am na soppeeku bu baax a baax a baax ci client ci fànn yëpp nag waaw bu jubsee ak bu jàllee ñoo ci yem bisimilah. barab yi ngeen di dem bitim réew di fa jànkonteeg ay jafe-jafe ngir indil askan wi li ñu soxla ci wàllu qualité ci produit quincaillerie yi ndax amoo leen ci benn jafe-jafe seen diggante taxi yeek nguur gi ak yu demee noonu. ah wàll woowu nag moom ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ndaxte avant màggal gi egsi dañuy jóg jëm ci waaye bu ñëwee loolu moom du mën a ñàkk waaye nag alhamdulilah ñooy sant bu baax a baax ndax bagages yi ñu ci commandé woon yëpp egsi na avant màggal wax dëgg yàlla ñoo koy commencé jaay fi ne toll nekk nii wax dëgg yàlla waaw ah, bisimilah. yan kàddu ngay tëjee eh, ngir mu jëm ci bis bu tedd bi ñuy waajal fukki fan ak juróom-ñett. ah xanaa bis bi de moom moom comme ni ko ni ko ñëpp baaxoo defee rek maanaam sant la ci yàlla Serigne Touba kem nun man rek waaw boole ko sellal ko waaw di ci def li nga xamee si ni daal moo neex suñu borom te di ci wattandiku li nga xamee si ni moo naqari yàlla ndax loolu mooy sababu sanc dëkk bi loolu la fi sëñ bi sanc dëkk bi kon nag nan góorgóorlu ci loolu bu baax a baax a baax li ñuy jaayit ñuy ñuy wax li nga xamee si ni moo ci nekk te bañ ci wax safaan bi te di ko oyofalal kilaan yi bu baax a baax a baax a baax ngir sëñ Touba salaamaaleykum wa rahmatulah bisimilah. ok salaamaaleykum wa rahmatulah soxna Fama Mbengue ñu ngi lay siyaare ci micro alxadimier ñu ngi fi tey ci marché Ocass nag nekkoon ci gëstu njaay meeg njënd mi ak euh, waajtaayu màggal gi gannaaw boo nuyo ba noppi ñu soog a yow ci laaj yi. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di nuyu waa di wax na ñu ngi ci programmation màggal gi mais màggal gi instant yi moom njaay peut-être ak. Euh, une semaine avant moom doon na dox moom tane woon na ndax nit ñi dañoo nekk ci événement bi dañuy xotti OTC et tout mais instant yi moom instant moom dafa taxaw moom par benn benn rek ñooy jënd waaw. kon soxna Maguette loolu bu ñu ko déggee day mel ne diggante xotti ak ak solo ak ñaw ak yooyu moom ñawlu loolu day mel ne kon wàccaay wi woon waaye fii ñu gën a jege bis bi moom nit ñi day mel ne lu jëm ci wàllu vaisselle ak ak nduggumu tooy mi la ñuy gën a tal defe naa. waaw loolu nag effectivement instant yi moom ñi doon xotti moom defe naa ne xotti na ñawlu ba pare. instant yi moom ci wàllu boisson lañ nekk wàllu lek affaire yooyu instant yi moom ci lañ nekk moom mais xotti beeg ñawlu yu moom moom moom jàll na moom yaa jaay nag par ay benn tissu ay ñaar par pièce yooyu noonu waaw. waaye loolu di xew euh, biñ tolloo ci di ko def boobu gisoon ga ci sa bopp quand mi awoon na ko soppiku. waaw boobu moom njaay moom neexoon na moom waaw da ngay xëy di jaay moom macha allah boobu moom njaay moom amoon na solo tuub màggal moom ñëpp a koy programme ñëpp koy waajal du Touba koy waaj ñëpp a ciy sànce aussi jënd nañ ay hôtes sànc nit ñi sànce nañ jënd nañ ci lafa yaay jënd nañ ci brodé jënd nañ vax voile yooyu yëpp moom doon na jar moom macha allah. yow nag de ta part personnel en tant que jigéen en tant que jeeg nan ngay waajalee màggal gi nag ci wàllu accessoire yi ak say gan. ah waaw ñun ñu ngi koy waajal ñu ngi koy waajal bu baax ndax ñun tooguñu bàyyi suñu bopp dañuy accueillir gan ñi. dañuy jaay nii mais bu desee deux jours trois jours du duñu ñëw ndax dañuy toog ca kër ga defar kër gi waajal gan ñi dalal leen pour bu ñëwee ñu ñu yaatu fi daal waaw dañ leen yaatal ñoom ñëpp ndax xam ne moom Sëñ Tuubaa woote daal ñëppay ñëw waaw. <laughs> yan kàddu ngay tëjee sonu magi waaw di leen sant bu baax rek waaw di leen ñaanal seen rajo yi moom it avancer dem ca kanam bu baax a baax a baax. waaw ñu waajal màggal gi bu baax a baax ak yéen gan ñi berne leen comme ne ko Sëñ Tuubaa santaane rek ñu ñu ngi koy bëgg a defee noonu incha allah waaw. fàttali tur bi ak sant bi. Fama Mbengue madame Diombaxo. asalaamaaleykum wa kon mbokki taalibe ñu ngi fi ba tey biir marché Ocass waaye nag ñu ngi ci wet gi nga xam ne ni ndugg mu tooy mi fi lañ koy jaayee ñu ngi fekk kenn ci gars yi muy sëñ Aliou Seye marché Ocass ñu bàyyi ko mu nuyoo ci micro alxadimier sëñ Aliou ñu ngi lay nuyu di la siyaare. waaleykum salaam ngi siyaare bi wér-wér a baax alhamdulilah waaw ndugg de moom macha allah wax dëgg yàlla moom waaw ndugg lool bagage seen lool marché bi xaw naa am jafe-jafe tamit trop dem geeg dikk bi marché dafa xaw a xat am na jafe-jafe tamit trop trop ci wàllu dem geeg dikk bi waaye nag lépp rek sant suñu tubaab bi wér-wér daal ñu sant yàlla bu baax a baax waaw. sëñ Aliou yéen ngeen féetewoo ci wàllu détail bi ndax ndugg mi dafa am grossiste yi am détaillant yi yéen ngeen woo ci wàllu détail bi ndugg mu tooy mi ta ñàkk ndax mooy ànd ak accessoire bernde yi loolu ndax am ngeen ci jafe ci jot ci jaayaat gi itam nan la demee waaw fi ne ndugum wax dëgg yàlla moom seet na trop seet na trop foo ko teg daal paas na ko fi ne daanaka kaani salak yi fi ne nii yëpp doole gerte gi lay jógee mais côté ñaay bi Kébémer yi xaw am na yàqu-yàqu tamit ndox meeg yooyu noonu moo tax wàllu ndugum bi seer lool tamit euh, bagage daal seer daal foo ko teg daal paas na ko fi ne nii tamit seer daal def na ko lool am ni ci mën a limal yoo xam ne jigéen nañ ko soxla ci waañu fas euh, zone rouge pataas naajo yooyu yëpp jigéen dañu soxla ak kaani euh, xeeñ bi ak kaani piment bi loolu yëpp jigéen dañu koy soxla te yooyu yëpp daa seer fi mu toll nii wax dëgg yàlla seer na trop bagage daal seer na fi mu toll moom. ci la seere wala ci euh, conteneur yu mag yi war a jugee di ko indiwaat ci biir réew mi yooyu. ci grossiste yi moom seer na fi loolu moom grossiste yi seer na fi parce man mii sax grossiste laa jaay waaye day xaw a pour ma jot ci pour ma jot ci contact bu mag bi day jëfal a jot daanaka fi mu ne damaa essayé ba fii nii bagage yi ba ndax léeg-léeg day jékki-jékki rek manqué comme tey li mel ne ñaami ji xaw naa manqué lool kanisa bi xaw naa manqué lool fii daal li fi xaw a mooy oñe beeg ak euh, basante yooyu ak joxti ñoo si xaw a tane daal mais is des moom xaw naa seet trop moom waaw parce que daanaka ñi la koy jaay prix en gros koy jaay pour nga dàqaat dara doo am dara da ngay technique pour pour yóbbu loo yóbbu na yóbbu sa daal waaw malgré malgré jafe-jafe yi diggante njaayu màggal ak budul màggal ban ngeen ci gën a gis seen bopp waaw màggal Tuubaa wax dëgg yàlla si lañu a gis seen bopp moom màggal Tuubaa moom si la jaay gën a gis seen bopp par rapport ak yeneen euh, bu jàllee quoi bu jàllee moom day xaw a métti xaw a dëgër tamit waaw bu xasee jàll bu xasee ñëw ne moom moom ñu koy waaje bu baax a baax si lañu gën a gis seen bopp gën a am suñu koom-koom tamit loo am loo xam ne ñu koy yóbbu suñu kër tamit waaw waaw yan kàddu ngay tëjee sëñ Aliou waaw ñi ngi sant yàlla bu baax a moom mi nu may ba nu fekkee bis bi nii daal ñu sant bu baax a baax di ñaan nag yal na yàlla def xéwal bu bëri bari yal na yàlla def jàmm ci dëkk daal ci barke Sëñ Fallou Mbacke mi nu yaakaar jërëjëf waay sëñ bi kon mbokki taalibe ñu ngi leen di seeraat baax ci micro Al Khadimiyyah TV ñu ngi fi ba tey ci marché Ocass waaye nag ci jaaykatu ndawal yi ñu ñëw fas yéene cee dékk suñu micro kenn ci ñoom mu wax turam ak santam bu ko defee ñu soog a sóob ak moom ci laaj yi bi Al Khadimiyyah ñu ngi lay nuyu tur bi ak sant bi ñu ngi lay fay Basirou Gueye ñu mal màggal ay fan des ci waaye jëkk màggal gi itam yéen a ngi woon ci marché bi ndax yéen yéen a yeewoo ci dëkk bi ak ñun ñii yan jafe-jafe ngeen di jànkonteel ci njaayum dawal mi jëkk màggal ak waxtu màggal ak buñ màggalee ba noppi. waaye marché bi de comme ni nga ko daan jànkonteel rek mais ren daf see xaw raw parce que marché bi gi nga ni maal bi mel booba tey dig nañ ko ay at ñu toog di xaar boobu la gisuñu dara te gi nga fi nekk ni instant bi dañuy toltalaan affaire xaw a metti bàyyi faal nekk si liggéey bi nekk si ndigalu sëñ bi te kenn sañ da te ñoom tamit ki ndigal la nekk di def li nga xamante ni moom lañ seen bi digal mais tamit ñun tamit buñ toogee fii di jaay amuñu fu nekk maal bi depuis booba tey ko defar ay at amuñu fu nekk tey maal bi tey boo xoolee ay bagage ka fi ne ay jaay ka fi ne wala suwaat solaar si nekk fi wala suwaat tamit waaw tux ka di ne fi ak bagage boo duggee fii da nga gis lépp ñu daal ngi nii rek marché bi lañ bëgg ñu defaral ñu ko ba mu baax parce sonn parce que marché Ocass boo xoolee ah, li ñu weesu ak ni marché Ocass mel léegi te Touba li muy rëy rëy rëy la marché Ocass boo xoolee xam ne marché Ocass tur kon yaakaar naa bëgg nañ loo xam ne maanaam ku ñëw fekk na suñu Touba gii respecté nu parce que marché Ocass bi boo dikkee da ngaan fii di marché Ocass te ñun marché Ocass moom la ñuy tuddee bu nee Touba marché Ocass la ñuy teg ñu nii mi ngi nii ñu leen toogee ñu ngi nii jànkuwante yu métti nag. sëñ Bassirou jafe-jafe yooyu ngay wax maanaam ak nu marché bi loolu kan nga ciy interpellé loolu état moo ci am responsabilité wala maire bi la wala lan la xam nga Touba tamit ñun uh, suñu lépp basé si état parce que dëkk bi dëkk Sëñ Bamba titre la kon am na loo xam ne du ko dépendre si état parce que ban ko toj fii état tuju ko ay kilifa fi ñëw te ay ndigal lañ ko tojee ko bu ñu koy defatee war na kaa defar boo xamante ni kii ñëpp dina am fu ñu parce que boo xoolee marché gaar bi moo fi nekkoon ñu nekkoon fa di suur la wu tey gaar fi mu nga doyun ba doyun ba rëyut ñi ngi ci mbedd yi ñuy xëyunu ñuy gontu li nga bëgg daal mooy bu ñu defaraatee place yi ñu def ko ay cantine rangale ko ku nekk ñu jox la sa caabi ndonte da fay par weer sax nga fay ko. waaw loolu tamit mënu parce que am xoolee Mali bi ay place kese la mais kenn ku fay jaay nëw fa bañ a bañ a ndax kon fii sax ban àggee ñu ngi sootalaat mais tamit wóorut parce que mi ngi toj day senn place baaxut kenn xamul lu muy ku ñu fekk fii daal doon respecté matériel dañ ko defaral ñu am fu dugg ñun lii bëgg ñun. laaj bi ñu koy tëjee mooy ndawal gi fan la toll waxtu yi ci jamono bi lay gën a jar wala yan jafe-jafe ngeen ci am wala mi ngi murite daal mi ngi jar. waaw daana gën a jar nag waaye tamit euh, xam naa ndox mi ak daataay ak marché bi ni mu mel xam naa moo tax état bi kii mooy tur mais état bi daana fekk màgg gi di jar lool lool lool lool lool lool tamit seer na te état bi xaalis amut liggéey amut maa bi tey bu baaxoon xëy na liggéey am xaalis am yàpp ma dox billaahi ñun daal li mooy suñu njàqare yan kàddu ngay tëjee dimbal ma gëstu marché bi xool marché bi ba xam ni ni jànkonte lan la ndax bu kenn ko ne toogee fi nga toog duñ xam njariñu marché bi duñ xam méttuwaay marché bi il faut que génn ñoo xool li fi nekk xam ne carrément li ñuy wax lu nekk ci ñun la dëgg ju wér péng la ñun ñu mën a dimbale ñun dimbale loolu barke Sëriñ Tuubaa waaw loolu la ñuy ñaan barab bi ngeen xamee moon si Touba ba tax dootu leen demati feneen di jéggaan leneen agsi na fii si dëkk bu sell bi showroom Diaw Déco si Touba 28 ak le gérant Pape Abdoulaye Diaw taalibe Serigne Fallou chaibo bi moo sagal doomu dara bis ni ki tey jàppaleen kenn dematul feneen di wuti leneen ndaxte nag ni ko Serigne Touba waxee woon si Matlabul Fawzayni lépp lu gën léppay ak si Touba Diaw Déco ma nga ca yoon wa mbokki Sénégal mbokki Touba lépp lu ajo si wàllu lumière électricité meuble pour seen décoration métallique lépp jëm si wàllu bois ak jawde ko 28 jaxle jeex da ngeen bëggoon ay enseigne ngir taaral seen barabu kay mu totem branding habillage façade lettrage enseigne lumineuse yu mengo ak jamono jawde ko fa muy tibbee la ñi gën xam ñi gën a ñi gën a bëgg lu baax dëkk yi gën a mag si di kon ak ngeen 28 am nañu ay lumière sur toutes les formes ay nouveautés tendance yi nga xamanteni mom partout si barab yi gën a ay luminaire suspendu luminaire plafonnier si jawde si Touba di nga fekk une large gamme de luminaires et de lampes waaye nag décoration liñ ci mën mën yi kenn mënu ko si fii si mim réew ay décoration yu méngoog jamono décoration intérieure ngeen am salle wala salon à manger ngeen am jàkka jumaa ngeen bëgg ay lustre wala lépp luy xet décoration pour barab yooyu bu ngeen amee barabu xasida ñëw leen jaw déco décoration chambre espace bu mën a doon lépp lu jëm si électricité am nañu les grandes marques du monde le grand Ingelec am nañu ay contact ak lépp loo xamante ni daal moom ngeen itteewu kay nga découvrir ngir sunu ay découpe laser jaw déco mo len yembal machine huit tax ngeen meuna réaliser li ngeen bëgg jaratul dem fanen sunu ay machine mo leen génnal ay design yu mucc ay pour seen décoration bu meuna donne, doon rampe escalier wala lépp luy travaux sunuy enseignes sont de qualité garantie pour une durée de un an si wàllub menuiserie jàppaleen boki yi bu ngeen bëggee dressing cuisine américaine comptoir ngeen bëgg ay logo yu mucc ay mën ngeen woti 76 224 44 04 wala 76 726 84 84 jaw déco si Touba moo leen gunge lépp luy seen travaux ànd ak personnel bu disponible accueillant xam wàllu wi ak gérant bi nga xamante ni lépp lu yokk Touba moo ko tax a jóg moom Pape Abdoulaye Diaw talibé Serigne de Cheibou mooy ñaanal ku tedd ki Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides yàgg fi lool te ànd ak